nanu bamtu nettali bi weesu benn lu tax Yaxya daan soob ci ndox nit ñi tuub Yaxya dafa leen daan soob ci ndox ngir wone ne nangu nañu ne bàkkaarkat lañu yu yelloo dee ñaar naka la Maryaama mi doon jànq ëmbee ba jur yeesu ëmb na ci kàttanu xel mu sel mi ñett lan la turu yéesu tekki ak lan la nuyu won mu ngi tekki musalkat mu ngi nuy won ne yeesu mooy musalkat bi yàlla dige ñeent lan moo xew bi yaxya soobee yeesu ci ndox xelum yàlla dafa wàcc ci moom ci melow pitax sol ko doole baat bu jóge asamaan dégtu ne kii mooy sama doom ji ma bëgg ci moom laa amee bànneex juróom lan la yeesu def bi ko seytaane fiire daan na seytaane ci kattanu kàddu yàlla gi